Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini nalen jaar nalen. Heba balde moo ñëwaat ak benen plat te dañuy togg suñu ceebu ginaar bu saf bu neex macha allah ku bëri bagage waaw ku bëgg bi ah présentation bi bësal sa baaram mu yéeg ci kaw macha allah nga aimé vidéo bi bala ngay continuer incha allah ndax di nga kontaan ñu ànd suñu waañ daal di togg suñu ceeb boobu macha allah dama am ma am ginaaw bangi raxas naa ko set ndawal bi aussi dag naa ko raxas naa ko moom itamit ba mu set macha allah léegi suñu bagage yaangi ni wa lolu xorom polle am soble am kaane bu sew kaane xeeñ kaane bu zone bi tomate concombre ñu am carotte nave am laaj legi lolu dal ak lini persi ñu am oignon ñu am gay mas wow oke eh, ah, okay. masya Allah bagasi yang ini iye bedem cici ebe masya Allah nyam amara mai sunyi kile gindam sunyi epis epis bilanya am koriander kima kirkima paprika nyam power masha Allah lépp daal léegi dañuy def suñu kii ñu daal di mariner suñu ginaar ba mu baax Allah di togg suñu léegi lii nii raxas e, raxas naa yëpp dëbb na ko loolu laaj la doomu laaj mom la dëbb non bobu tamit roof la oño la ak roof ak kané ci bi légui sama ginger bi tamit aussi mom la jël non waaw dëbb na kané bu xeeñ bi dama ka xaj non ma dal di dëbb xaj bi waaw mom la jël non légui dama jël ben limon dal di ko ci def machallah waaw ñu mariner ginaar bi ba mu kontaan macha allah ba defee togg suñu ceeb bu jaar yoon bu neex boo xam ne daal ku ko lekk daal di kontaan macha allah léegi damay def sauce soja sauce soja moom lay des noonu waaw sauce soja lay def noonu ceeb sans sauce ceeb bu yàpp daal sans sauce soja daal <laughs> gisuma ko mbaaw macha allah moom laa jël noonu léegi damay daal. wa legui ci marinade bi lañ nekk de mélanger ma sha allah legui damay def poivre wa def suñu épices yi ma sha allah épices yi la def dal legui paprika dugg si na macha allah li yépp épices yi yëpp neex ci ginaar té aussi da koy jox ben couleur bu neex dafa neex aussi ci ci ciép wa bobu kirkima la dafa neex ci ciép wa bobu kima la léegi dama ñu def dal di def coriandre bi aussi waaw coriandre lay def nonu machallah waaw épices dañu bax waaw dañu bax dal machallah allah mhm. jar lu jara gestu la pour nga mën xam bu nek la nak lan lay def ci sa santé machallah allah ko defee la ngay contane léegi def naa diwlen ba nga affaire bi dina gëna bayyi bàyyi dina gëna bayyi ma mën mariner gi machallah ndawal li waaw léegi efisi eh, effigie yaa ngi noonu macha allah ñoo ko gisandoo bëgg da ngay dem rek nga dal di ko recherche dem ci supermarché jënd lepp ñoo tek dal di ci togg bu baax ba mu bari doole léegi defal na sama marinade ba pare wa sama ginar gañi ni xorom nako ha limon nako xam nga ma ci raxasum ginar nga ko raxase na ko raxase xorom raxase ko limon waaw bu amul limon nga jël vinaigre apa sih untuk meda keseta lomba masalah lagi memplanet ni dan di kemarin lagi setinggi nari mengibu ke kawan keluaran a ah, episi dani dani rafetal era fetal bu arbu bah bah bah bah aw ah, mumkin de bi lai ko masar era fetal satong samarin ada rafet da daga juh ben kulur bu rafet seginar surtu jadi dinako dinako marinono buka de dal, ha ah? di dal togg bi non pumasok to gubinon dole inshallah korga dem ah korga da ngi dem mangidam desa nak ah dole wanyo kuna togg nak togg mu ci ay mashallah dal di tek tegal alaji koroyi jekei ñepp dal ñepp ba ñepp kontaan inshallah waaw legi tek na sama dewlen waaw leg dama ñu dal di saaf ginaar gi mom lay ñëk saaf dama saaf ginaar gi ba paré dama dal di uh, continue ci liggéey bi inshallah allah bismillah dama saaf sama ginaar hein ah. ku am ñaar ginaar man nga jël ku am tamit bu ëpp sama bos bi man nga ko jël aussi wa dese naa gis ngeen dese naa fi marinade bu bari bu mëna ko toggee sama ceeb inshallah waaw mën naa ko toggee sama ceeb ndax marinade bu classique la te bu neex la boo xam ne manqué wul dara waaw xorom pole am lépp macha allah waaw suñ ginaar gaa ngi nii ñor na ah doore na macha allah léegi dama koy ñëw daal di xool ci ginnaaw gi tamit ndax ah, tourné naa ko ma xool <laughs> ginnaaw ginnaaw ginnaaw gi tamit ndax ñor na ko defee ma daal di ko seppi noonu macha allah noonu la rek ginaar gaa ngi moom tamit ñor na gis ngeen ginnaaw gi tamit ñor na aussi léegi dama koy daal di seppi ko defee ma def ko sama agat waaw def ko à côté noonu xaar ba si kanam waaw kay waaw léegi maa ngi ñëw daal di jël sama ndawal ndawal li aussi tamit raxas naa ko ba mu waaw def naa ci xorom macha allah léegi moom laa moom laa rosi noonu léegi dama koy rosi bàyyi ko fii moom itamit di yàgg ba mu ba mu doore daal ba ndawal li nooy nga xam ne ndawal li ñor na ñoragul nga daal di kii léegi euh, dëbb naa beneen nokkos waaw nokkos bi oño la soble kaani sofia kaani xeeñ kaani bu sew waaw bu nekk tuuti daal poobar zaar yooyu moom laa ci def macha allah léegi moom laa def noonu nga xam ne day ànd ak ginaar day ànd ak ndawal li ñor waaw macha allah day andag mom doore non safal ko bu baakha baakha baakha waaw ak laurier waaw foy laurier ya tamit aussi ha ma sha allah mom tamit dafa saf ci ci ceeb laurier ya dafa saf ci ceeb ku amul poudre bi man na jël e, bi ni man na jël e, kii deub ko legi suñu ndawal bi doore na ah. bu baakha baakha baakha fum ni nii ñor na boo ko da ngay da ngay santé na ndawal li ñor na instant bi ni léegi dañ dama ñu daal di dëb jël ci tibb ci nokkos bi ci marinade bi li ci def ma tibb ci kuddu daal di ci sanni waaw baye ko ba ci kanam tuti tamit ba mu gëna a kii daal mas ba mu gën a ndawal li ba defé ma daal diru si daal waaw continue ci ceeb bi ceeb bu jaar yon lay ma sha allah xamna di ngeen ne ba bëgg nga ceeb di ngeen ne ba bëgg nga ceeb way de sha allah waaw legi damay rosi rosi na non legi ma ngi tay sama ndaw eh, sama ma ngi tay sama sama ceeb fe ko defé bala fi di ñoo xamna xam bi tamit tay naa ko à part bu ko defee damay suur legi damay tek fi ni baaral bu baakha baakha baax legi dama ñu dal di delo ginnaaw bi aussi dal di delo ginnaaw bi waaw delo ginnaaw bi noonu moom tamit bismillah da defé ma wañi sama gaz bu baax baax baax baax wañi gaz bi surtout bala muy ñe wala muy li comme ko la mën nga dem sax bala nexé te dalé tuuti waaw wala nekk ci leneen jàng Quran wala setan télé zaar yoon Ding antana matog sama sos. Wow, antana matog sama sos tek na de pol def na ji tuuti dew na duma xaar har saas de dama koy russi noonu rek soble laa dagg ak navet bi ma leen wonoon sànq ak carotte moom laa dagg noonu léegi moom sauce bi moom lay togg sauce bi Pur pour da, bi daal léegi na naa aussi chi marinade bi ba tey benn kudu, mom lay def sama mom lay def si sama soos noonu bu ko defee ma continuer liggéey bi incha allah waaw léegi damay togg soos bi noonu macha allah moom tamit fii instant bi ku bëgg man nga dolli say air walla leneen ak leneen ak leneen mais man comme sama marinade bi saf na sàpp macha allah nii lay def rek bu ko defee si kanam yi ma dolli tuuti poobar après ma daal mu daal di dégg jaamu daal léegi dolli naa poobar dolli naa poobar lu tolloo kuddu boobu tamit aussi waaw ah, pour nga xam ne day saf macha allah waaw ah, sànni tuuti xorom def tuuti vinaigre affaire bi ñor daal léegi sama ceeb baa ngi nii di def ay mbiram ah macha allah léegi damay dolli sos sosa tuuti ko defee daal macha allah waaw léegi damay dama koy kii noonu xool ndax affaire yi ñor fumu tollu toll ndox bi fumu tollu yemna wala yemul waaw ma xam ndax ñor na inshallah bu ko ma daldi ko seppi daldi di waaw kay eh, legi sama soos baangi ni mom tamit daanaka ñor na waaw dama xol fii xol pe ba legi sama ndawal ñor na ah macha allah léegi damay ñëw daal di ko daal ko seppi ñëw sur da sur ceeb booy sóor bu de ko gi la dangay xaar ba ay 30 minutes yoy xamna 30 minutes mo dess bu de ndox ngay def sinon bu de ay rer la tamit aussi man nga xaar ba wa nga baral dal sa gaz wala wala fi dal fay sa gaz xaar ba ci kanam-kanam ni seppi na suñu set baa ngi noonu macha allah léegi daal euh, suur rek mo ci dess inshallah bismillah legi dama suur sama ceeb ko defee yëngal ko ah ku ku bëgg instant boobu man bala ngay sóor mën nga yokk say saf-safal waaw yokk nokkos zaar yooyu waaw gis nga macha allah waaye man dama yokk sauce soja yokk coriandre waaw tuuti poivre waaw sànni ci tuuti kii loolu épisode boobu filmé ma ko moo Masyaallah, legui dama ñëw dal di mariner sama sama crédité eh. wa maïs baa non olive bi aussi wa dama defar sama ben sama touti vinaigre mom la koy mariner non macha mom tamit bu ko defé mu gëna neex dal wa ku bëgg tamit mën nga ko baña a mariner ndax day neex ba tey tamit marinade bi tamit da ci neex macha allah tay tax marinade marinade bi dal laa ci tam एकदमै सेफ्टीसँग ini voanya ko après nag def yi ca des bu ko defee daal lépp saf lépp neex macha allah léegi damay sotti lii nii waaw tamaate concombre waaw kaane bu vert boobu bu zone boobu macha allah moom lay jël daal di mariner lépp ah waaw ah, ba nga xam ne marinade bi da koy dugg ma daal di ko tëj moom itamit fële ba ceeb bi ñor Maya tuh wah tadi dekor sama no mau berdua dan masya Allah dekorasi yang dapat amsolullah cinyam dapat amsolah togu bamuneh ya. Dekor dekorasi yang bu rafet bo xamne ko gis dal beutam lay ñëk souré ma sha Allah day content présentation bu rafet ma sha Allah lolou da ci am solo mm -hmm léegi li ni marine nako ba pare léegi dama koy tek moom nek teg ko ak côté fële wa léegi ma ñew xol sama ceeb ma dal di jëf-jëf ni premier jëf bi inshallah allah bi baax na ni ah, wo wo wo upp pare tamit tooyal tamit macha allah yem na képp fu ma ko soxlaa woon foofu la ñëwee macha allah te aussi doore na jox na ma benn couleur bu rafet waaw épices yi na ma leen doon wax rek moom day rafetal togg surtout curcuma boobu day rafetal togg bu baax a baax baax baax waaw te aussi day neex instant bii nii ah ceeb baa ngi gilli daal <laughs> ma ne ko mu ngi gilli de waaye nag macha allah daal togg bu naree neex daal moom bu waxee day feeñ di noonu loolu lañ wax de macha allah instant bii moom ah baax na daal bàyyi ma yem foofu rek à rek à <laughs> waaw léegi ceeb baa ngi noonu de macha allah hmm? ñor na lépp baax na insaan bi mën naa ah, ma am sama plateau bu baax macha allah léegi ceeb baa ngi nii yàq naa ko dese naa soos crib bi ku bëgg yokku après man nga yokku macha allah neex na bëri na waaw eh, na ngeen ma ñaan leen ngeen abonné ah partager bi aussi partager bi na yokku partager ñëpp ba ñëpp jot allah